gouvernement bu bees bii Amadou Ba euh, monsieur pot de vin parce que Amadou Ba moom mooy monsieur pot de vin Amadou Ba ginnaaw Marème fay Sall ak Macky Sall mu ëpp li mu sàcc ci ay milliards Sénégal loolu dafa jar ñu koy wax parce que loolu moo am Ousmane sunku wax na ko ko jour bi mu ñëwee assemblée nationale vidéo bi je pense que gis ngeen ko ci internet bi Ousmane Sonko bi muy wax ak Amadou Ba ci loolu la doon wax ak moom Amadou Ba moom exonération yu mu doon def. bi mu nekkee directeur impôt domaine ak bi mu nekkee ministère des ministre des finances yëpp exonération yi mu doon def di effacer ay dettu cent milliards yoo xamante ne Sénégal moo ko moom c'est parce que da koy effacer gars yi jox ko ci un pour cent dix pour cent wala vingt pour cent Amadou Ba noonu la amee ay milliards te Macky Sall xam na ko Amadou Ba nag dafa ñëw pour jouer le sale boulot c'est-à-dire li nga xamante ne mooy dëgg-dëggi programme am contre Ousmane Sonko projet bi mu am contre Ousmane Sonko c'est-à-dire destruction bi destruction bi mu bëgg moom Macky Sall ci Ousmane Sonko. Amadou Ba loolu moo ko indi ci gouvernement bu bees bii loolu laa bëgg nag souligner ko ngeen bàyyi xel patriote yi parce que dañu war a takku ba dëgër Amadou Ba Ousmane Sonko moo ko andi gouvernement euh, nu mu tudd gouvernement bu bees bi yéen ñëpp xam nga ni gouvernement bii nii du gouvernement pour liggéey gouvernement politique politicienne la. gars dañoo créer seen benn équipe de combat lu tax ma ne équipe de combat la xool leen ñëpp ñi nga xamante ni ñëpp ñi nga xamante ni ñoo gënoon a virulent contre Ousmane Sonko. ñi nga xamante ni ñoo gën a ci waa APR contre Ousmane sunko Amadou Ba ñoom ñëpp la delloo siwaat ci biir gouvernement bi ci Boubacar ci Moussa Bocar Thiam laay commencé Moussa Bocar Thiam moom moo agressé woon Ousmane Sonko euh, élection législative yi passé campagne yi moom moo yónnoon ay booy bi Ousmane sunko duggee Matam Moussa Bocar Thiam agent judiciaire de l'État simple la woon mais moo agressé Ousmane sunko Matam tey def Amadou Ba def na ko ministre Mame Mbaye Niang nga xamante ne da sax da koy doon jaral muy mandi ñëw di dugg ñëw ci plateau télé yi di accuser Ousmane Sonko lu nekk tey Mame Mbaye Niang boobu noonu Amadou Ba récupéré waat na ko def na ko ministre. Euh, Doudou Ka yi nga xamante ne ni moom kenn gënu ko tixit ci àdduna dof boo xamante ne nii saa yi dof bu ñu peinture la xamul lorul violence xamul lorul agression agression yi Ousmane Sonko subir Ziguinchor yëpp. Doudou Ka moom moo ko doon moo ko doon piloté tey Amadou Ba indi na ko dugalaat ko ci bi ministère yi defaat ko ministre. Euh, Pape Malick Ndour bi nga xamante ne moom mooy alias Anita Diop bi nekk ci internet bi créé ay faux compte yuru jeex moom Pape Malick Diop di agré di attaqué Ousmane Sonko de haut en bas de gauche à droite tey moom Pape Malick Diop moomu Amadou Ba indi na ko def na ko ministre. Euh, ak kan des nañ de. Yankoba jatara amul ku ko gënoon a virulent moom da doon def ay conférence de presse uniquement pour dal ci kaw Ousmane Sonko Amadou Ba def na ko ministre. pour ne citer que ñoom ñii doon nekkoon fii yëpp doon attaqué Ousmane Sonko tey Amadou Ba yokk na leen doole maanaam saydi tey tey jii nii leen daf saa daf leen a rendre légal agression yi doon am ci kaw Ousmane Sonko yëpp tey Amadou Ba daf ko validé légaliser ko c'est-à-dire tey ñoom ils ont à leur disposition. tous les moyens de l'État pour dal ci kaw Ousmane Sonko gouvernement bii nii ñu teg loolu moo ci jara xool moo ci jara souligner moo ci jara bàyyi xel patriote yi nag laay waxal biyow ba nañu takk bu dëgër bu fekkee li ñuy woote dëgg la si ñun bu fekkee ñun Sénégal maanaam jëm maanaam Sénégal jëm kanam ñor nañu dañ takk bu dëgër parce que gouvernement bii nii taxawul pour liggéey gouvernement bii ñëwul pour liggéey ñii dañoo ñëw pour maanaam cest exécuter Ousmane Sonko ñëw pour maanaam détruire Ousmane Sonko loolu moo leen fi andi des na keneen Aly Ngouille Ndiaye bi nga xamante ne nii. sàcc yi sàcc kenn dàq ko ko ci senegal Aly Ngouille moom li tax mu mën a sàcc élection comparé ak ak ak ak ak cuuj bi nekk ci ministère de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom sàccam systématique la roon sàccee moom sàcc moom sàccam daanul flagrant comme ni ko Antoine Diome di defee Aly Ngouille Ndiaye dellusiwaat na ci guvernement bi ñëwul war a appuyer ki nga xamante ne moom mooy. Euh, Antoine Diome Antoine Diome ñu mainteniraat ko foofu noonu malgré massacre yi mu def depuis bi fi toogee ba léegi assassinat yi fi def rey yi mu fi def yëpp boobu ba léegi ñu maintenir ko kon xam nga nit ñi ah ñëw ñu pour liggéey gouvernement bi ñëwul pour liggéey gënoo ñëw yaa ngi dëgg pour indi mettre la kawo dans ce pays Ba projet bi mu amoon mois de mars deux mille vingt et un Ba parce que Amadou Ba moom mooy le plus grand recruteur de nervi ci Sénégal topp ci ay Bocar Thiam topp ci ay Doudou Ka parce que amaru Ba nervi yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci mois de mars bi Amadou Ba mu moo leen recruté woon moog Moustapha Diakhaté ak Maïmouna Ndour Faye parce que Amadou Ba xam na ni Ousmane Sonko dafa yor lu leer naññ ci moom pot de vin yi mu doon encaissé Ousmane Sonko daf ko ci loxom exonération yi ñu doon pot de di ko jaarale ci ay exonération Ousmane Sonko daf ci loxom Amadou Ba xam na loolu Amadou Ba moom mu leen gën a xam ne Ousmane Sonko bés bu nekkee président bu Sénégal jarul mu koy woowu jarul mu koy jëriñ da koy woo mu ñëw lii moo enjeu bii moo nekk ci gouvernement bu bees bi patriote yi loolu laa bëgg ngeen ngeen ngeen xam ko lii laa bëggoon a souligner ci lu gàtt patriote yi ngeen xam ni pare leen au combat parce que Amadou Ba kaw bi nga xamante ne nii moom la bëggoon ci mois de mars bi kut kut kut débarrassé wu ci Ousmane Sonko mu jëla ko mu dem mu dem recruter ay nervi Amadou Ba boobu tey moo nekk teg ci moo nekk ci bopp gouvernement bi yor tous les moyens possible yor tous les moyens possibles parce que ñii gën a doon ay xaj ci ñi nga xamante ne ñoo waa APR ñoom la ñoom la ñëw regretté ñoom la indiwaat tey jox doole. lii moo xew lii laa bëggoon a souligner ngeen xam ko te ngeen partagé vidéo bii ba patriote yëpp jot ci ñu xam ni heure affrontement bi nag jot na heure affrontement bi jot na. voilà man lii ma doon sama point de vue ci par rapport au gouvernement bu bees bi parce que bi mu gouvernement bi maanaam seeg bi ñu ko tegee ba man maa ngi toog di xalaat di calculer yaa ngi dégg lan moo yan mooy faay ak yan mooy opportunité yi mais il est clair que ni gars yi dañoo pare pour dem à la guerre loolu moom na ko patriote yëpp xam Amadou Ba mii xool leen li ma leen wax Doudou Ka euh, Yankuba Diatara Pape Malick Ndour euh, Mame Mbaye Niang ay Moussa Bokar Thiam ñii ñëpp ñoo fi ñoo fi nekkoon di agressé Ousmane Sonko. guddeeg guddeeg suba ngoon te ñoom ñëpp la tey la tey jox doole ñoom ñëpp la légalisé. jox leen doole jox leen jox leen armée jox leen di jox leen police jox leen lépp na ko ay xamee noonu.